Euh, donc dañuy njëkkee ak anniversaire Aram Ndoye Kër mm. Massar Aram Ndoye ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de Ngone Kan Thiat Mandéri Binta Ndiaye Alimi ci Sine mbokk mm. ndeyam ndey Mati neex a fekk France ñoom la Fatou Gueye woyoon euh, njaram lambul euh, donc Aram Ndoye loo dund doyul Ngone Kan mi fonk lool moo fi jaar nee na mu ngi lay souhaiter un bon anniversaire donc happy birthday a la grande Aram Ndoye moom it ñu miin ko lool mu yàgg a nekk jigéenu jàmbaar Aram souhaite un bon anniversaire joyeux anniversaire à Alaaji Sidi Koundoul moom it tey la bésam euh, borom Toulouse Taourou gi Diallo ak euh, Nabou Ndour euh, Naaru Dame Koundoul ak Awa Diallo donc Awa surtout nee na mu ngi lay bégee di la souhaiter un bon anniversaire loo dund doyul Alaaji Sidi Koundoul happy birthday borom Toulouse et puis joyeux anniversaire à euh, Patessi euh, Baye Mohamed euh, Patessi euh, Sissa Wande euh, ñu ngi lay ñaanal euh, gudd fan ak wér c'est de la part de toute la famille de la part de Awa ak gars yi la fonk lool donc tey ci sa bis bi ñu ngi lay ñaanal Patessi Baye Mohamed happy birthday to you joyeux anniversaire à Madame Seck Fatou Sey c'est de la part de ton de tes belles sœur à Biagui ak euh, toute la famille donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan sa belle sœur la on lui souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire joyeux maman bu maam Saliou c'est de la part euh, de son mari euh, son marabout Serigne Saliou nee na mu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. joyeux anniversaire à Khadija Diène euh, madame euh, Mané euh, ñu ngi koy ñaanal gudd fan c'est de la part de madame Diop Diodo Mbaye yaayu Rasoul moom it ku baax la Khadija Diène on lui souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à Mami Mbodj c'est de la part de Habib Faye baax yaru bëgg ñëpp loo dund doyul Toute la famille te souhaite une longue vie et une santé de fer. Joyeux anniversaire à notre grand frère nekk fii ci euh, télévision Futur Média jiite euh, service à valeur ajoutée euh, Pape Cissé sànq rek. wallaay jaaxal Cissé maa dem rek baax baax baax kat baa ngi. yow kenn gënu la gan bi yaa baax yaa bëri valeur. ah donc Pape Cissé ñu ngi koy ñaanal bu baax euh, joyeux anniversaire c'est de la part de euh, service euh, à valeur ajoutée bu groupe Futur Média ak service commercial bu télévision Futur Média c'est de la part de ñoom Anne-Marie c'est de la part de Eva c'est de la part de Thérèse Sarr c'est de la part Batal c'est de la part de ñun ñi nga xamante ni dañuy àndandoo ak moom ci yeewu leen bi on lui souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à mère amie Sissoko bu Momo depuis Wakam joyeux anniversaire à ma fille chérie euh, Adja Aïssatou je te souhaite tout le bonheur du monde c'est de la part de Tata Binette ak euh, toute la famille Ndiaye joyeux anniversaire à maman Diène euh, ou Diémé c'est de la part de euh, maman Mani ak euh, ton papa Babacar et de toutes tes depuis Thiès on t'aime fort joyeux anniversaire à Aïcha Borom Pikine que du bonheur dans tes projets Joyeux anniversaire à Awa Sen, on te souhaite tout le bonheur du monde, réussite totale et une longue vie. C'est de la part de Penda Badji ak euh, Adja. Donc Awa Sen, happy birthday. Joyeux anniversaire à Bijou Ba euh, depuis Gambie, euh, c'est de la part de ton frère Bouba ak euh, Fatou nekk Belgique. Je vais anniversaire à Oumi Badji euh, depuis Banjul. C'est de la part de ta jumelle Aïcha Traoré et de toute la famille euh, Badji. Et puis joyeux anniversaire à Latmengue Faye. Je te souhaite la totale euh, dans tous tes projets. Longue vie. Euh, il reste d'autres messages mais xam naa dinañu ko jàllale euh, ci générique bi puisqu'il est 11h 11h02 ñu ci tàggoo Exidex à lundi incha allah. à lundi incha allah Pape Cheikh xanaa di fàttaliwaat Sénégalais rek ne Ablaye Mbaye mu doon jóge fii euh, def ren euh, tey anniversaire am la c'était euh, 9 euh, janvier donc yal na ko yàlla xare àjjana bu ñu ko fàtte ci ñaan ndax liggéey na ko fii incha allah et puis euh, voilà di aussi masawu artistes yëpp sinon rek di nuyu tamit sama benn jigéen ju baax muy maître maître Diali kan maître Diali kan nag moom sama nit ku yàlla baaxal la garmi ndax mm-hmm. Sénégal am na nañu yàlla baaxal mm-hmm. moom euh, vraiment dama koy euh, remercier encore une fois di ko wax na ko euh, boo jàppee ma jàpp incha allah rek def naa ne kii ci digg bi moo gën moo ku ne. merci beaucoup en tout cas maître Dialy Kane. voilà merci. mu ngoog merci Exidex yaa oustaz ñu ngi lay gërëm yow itam bu baax dig daje gi ak yow suba lay doon ci vendredi bi incha allah. incha allah Baye Cheikh yàlla nañu yàlla may fay fal ak ak. tal ak fekkee tal si barke yonent bi sallallahu nga may ma rek ma souhaité joyeux anniversaire suñu caatu kër Ayta Diop ñu di gën ko xam si Ayta Aysatu Samba Seck ñu di ko wax Ayta Diop moom sama rakk la mu ngi nekk depuis maatam foofu lay jàngalee euh, jàngalekat la Ayta maa ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér suñu borom subhanahu wa taala lafal la cat te may la boroom kër bu baax a baax ziar bu ak ah, si sama turu yaay ak turu njaboot gi yëpp Ayta joyeux anniversaire ak euh, Adja Seyna bu Diop mu ngi nekk depuis Amérique ak sama <laughs> jaatige Gueye DG RFM maa ngi ko wax ne namm naa ko bàyyi Cheikh de biiram bu moo tax boo ko tooñee wala nga dugg ci ay 18 ans benn ŋàllu biin bi rek da ngay am problème pata la boo xamante ni yi ma wax nii yëpp maa ko yàq bu ko seetaanul ngeen yeggee ko ko moom El Hadj Assane Gueye bu RFM maa ko waxal yii yëpp voilà voilà yam merci moom euh, Daouda Diouf xam naa naa organiser euh, concours groupe bi doon. voilà entre Daouda Diouf ak euh, El Hadj Assane bu bu RFM on les ñu ngi leen di béggee bu baax jaajëf Modou Ndiaye ba leen euh, di. jërëjëf Pape ba leen di incha allah suñu soppe yi ñuy seetaan partout euh, jot nañu message yi jërëjëf ñu ngi di gërëm di rafetlu bu baax encore une fois rendez-vous lundi incha allah. bu soobee yàlla Amadou Ndiaye Mbissane Thioro ñu ngi lay gërëm yow it. Euh, merci Pape Cheikh merci à vous à jeudi incha euh, souhaiter un joyeux anniversaire à Papa Kouri Faye, notre grand frère chéri. On t'embrasse très fort. Toute la famille te souhaite un joyeux anniversaire. Fatse, encore une fois, on t'embrasse toi aussi. On t'aime très fort. Happy birthday. À, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. El Hadj Mbaye Garmi dig daje gi ak yow euh, tey ci guddi euh, lay doon xanaa profité ci rek ndokkeel la par anticipation. Euh, ci suñu doom suñu rakk di Maodo Garmi. nga xam ni dañu koy may soxna incha allah samedi. Mm.